jàmm mu melni nag fédération égyptienne de football daal dinañu porte plainte rek ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Sénégal plainte boobu nag li ko waral rek moo di attaque de la mission et inscription raciste ñii di nag égyptiens yi dañoo daal di porte rek Sénégal plainte auprès de la FIFA et de l'AFCAF ñoo ngi xam xamle rek ne sénégalais nag dañ doon xas ñi nga xam ne nag ñoom ñooy seen joueurs yi doon leen doon saaga ba si rek ay panneau dañ cee bindoon rek ay saaga toujours di leen ko doon adressé surtout rek nga xam ne nag moom mooy Mohamed Salah ñu yokk ci rek ne loolu seen séance d' entraînement bi nga xam ne nag amaloon nañ ko foofu ca stade maître Abdoulaye Wade avant match bi rek ñi nga xam ne nag ñoom ñooy sénégalais dañ leen doon sànni ay butéel waaye tamit di leen di saaga yemul foofu mu mel ni nag ci bus bi nga xam ne moom leen yéegoon pour dem rek fi nga xam ne nag moom mooy stade maître Abdoulaye Wade joué yi rek match boobu mel ni na nag dañoo wax ba bus bi rek dafa am vitre yi nga xam ne dañ cee toj ba am ci rek ñu ci am ay gaañu gaañu mmh, loolu nag li koy prouvé mooy ay vidéo yi nga xam ne yor neen ko ak ay photo communiqué boobu nag mmh, waa fédération mmh. égyptienne de football ñoo ko daal di rek publier ci seen page Facebook waaye nag duñu fàtte benn yoon lajeur yi nga xam ne nag ñoo ngi leen ko doon teg pour intimider ñi nga xam ne ñoom ñooy seen joueurs yi communiqué bi nag waa fédération égyptienne de football ñoo ko daal di seen page Facebook internetu Allô Sénégal xibar bi len len don tektel bu len faté abonné pour jot suñu yeneen xibaar